ndeysaan association des promoteurs ñoo ñu fi indi mbokk tey nekk le 12 janvier 2020 stade Diom Iba drapeau ministre des sports maître Matar Ba ndeysaan mu nekk ku baax bëgg sport waaye rawatina lamb lamb buñ delloo njukkal Matar Ba wàcc nañ li mu defal lamb avant l'indépendance ba tey amul benn ministre des bu ko mës defal làmb arène nationale bi ci loxoom la matee moom Matar Ba ñu koy ñaanal gudd fan ak wér ba mu yeggale ak sagoom fi mu bëgg yóbbu réew mi xam na ko yàlla na ko fa yàlla mottale arbitre bi sifflé na Franc Boy Faye ña ngay lewaatoo Boy Faye concentré wul ndeysaan Franc Boy Faye baa ngi noonu poids lourd Boy Faye Franc dalay sol ak sànni Franc bëgg waaw waaw dalay sol ak sànni Boy Faye Franc na ko mu bañ <laughs> Boy Faye nga noonu tàqali ko woon ñoom ñaar bi saison bi tëjee kii daa dem états kii dem Maroc Franc moo demoo États-Unis Boy Faye dem Maroc tey daje nañ nag fii ci stade Diop Iba Mar Diop Franc bëgg naa jàpp Boy Faye bañ Franc bëgg naa jàpp Boy Faye bañ na Franc Boy Faye Franc Boy Faye Franc Boy Faye Franc Boy jàpp na waaye Boy Faye bañ na mbokk yi ñu ngi ci final bi booy Faye añ na ko Franc bañ na ña waaw waaw ndeysaan monsieur Diop gis nañ liggéey bu rafet ba nga liggéey fëre ci arène nationale mu dox ci diggante ndeysaan kaaw du ak deux jaaraama Ousseyn Diop ndeysaan mbokk ñu ngi ci ba ci final lour bi dox ci diggante Caaka Fay ak Emine François Gomis cey lamb compétition bi li muy gën di dem ndax di gën di toog ndengeñante nañ Boy Faye ngemb bu ñuul Franc ngemb lu ñuul ñaari xale yaa ngi noonu ci final bi tey làmb Boy Faye Franc drapeau Matar Ba ministre des sports la ndaysaan Boy Faye Franc association des promoteurs ñooñu fi woo mise bi juróomi million la <laughs> cey lamb oh ku bëgg lu leer bëgg lu set bëgg lu rafet fii nga koy amee Boy Faye Franc takk na ko Franc takk na ko Franc takk na ko Boy Faye fi la Franc yegg sori na dana jeexam déet Franc takk na ko Franc takk na ko ay lamb ji Boy Faye bañ na <laughs> ah Franc mbot na ko fay lu mu nar taxali oh, ko waat nañ stade ba yuuxu nañ ndeysaan foo toll gis ñu taal seen téléphone di filmer booy fay fara booy fay fara booy fay fara ndeysaan taxali ko waat nañ ñoom ñaar booy fay fara cey làmb booy fay fara ña nga ndenge ta ba tey ku nekk di déglu sa morom Boy Faye Franc ndeysaan drapeau Matar Ba munul yomb déedéet li mu def ci réew mi def ko ci sport ndeysaan drapeau munul yomb fi mu teg làmb wanewul ni doomu Fatick la rek daa am complexe sa làmb déedéet fépp fu mu dem drapeau lamb lay yëkkati moom Matar Ba Boy Faye takk nañ ko Boy Faye Franc fi la yegg sori na Boy Faye Franc fi na looy waaj da koo bëgg a mbat wala déet Boy ñu ngi ci final bi ba tey Boy Faye Franc ci mi kaay nañ toog Boy Faye mbot ko mu bañ a lamb ji yomb Franc Boy Faye Franc Boy Faye ci mi kaayu Franc kenn toogatul ñëpp jug nañ taxaw arbitre bi atte na kaay leen ci diggi géew bi ndeysaan Boy Faye bi nangu wuñu avertir nañ Boy Faye waaye public bi nanguwul ndeysaan arbitre bi atte na taa jeex na ñoom ñaar ku ci nekk am na deux minutes arbitre bi sifflé waat na booy Faye ak Franc arbitre bi sifflé na Boy Faye Franc arbitre bi sifflé na ña ngay lewaato Boy Faye Franc ndeysaan mbokk yi Franc moo leen féete càmmoñ Boy Faye moo leen féete ndijoor arbitre bi sifflé waat na final poids lourd stade Diom Iba Mar Diop association des promoteurs ñooñu fi woo le 12 janvier ndeysaan 2020 drapeau Matar Bala munul yomb ci mbër munul yomb ci promoteurs yi munul yomb ci amateurs yi ña nga ca ba tey il est vingt et une heures quarante Boy Faye Franc wër na ko ndomba Franc wër Boy Faye Franc na ko ndomba eh Boy Faye rëcc na Boy Faye rëcc na Boy Faye rëcc na Boy Faye rëcc na eh Boy Faye rëcc na ci war ndomba bi Fara war na ko ndomba Boy Faye rëcc ay sama xol sedd na waay lii laa bëgg ci làmb dañuy bëre ndaysaan yombul Boy Faye concentré wul bul foowee bis munoo toll ci final di foowee bis ndaysaan Boy Faye Franc ndeysaan lamb ju neex Boy Faye Franc ñaari xale yi joxe nañ lu ñu am muy Franc muy Boy Faye <laughs> ndeysaan oh cey lamb mbokk yi safoo wasaare lamb seen mbégte rek mooy suñu bànneex lii lañ leen indil ci stade Diop Iba Mar Diop le 12 janvier 2020 ndeysaan promoteur yaa ngay filmé xoolal ndeysaan Assane Ndiaye fee taxaw yor caméraam di filmé moom Assane Ndiaye ndeysaan sëñ Basiirou borom mbég meeg taar maa nga ne ca kaw tribune bi mbokk yi lépp lu ngeen bëgg fii ngeen koy amee ci wasaare ndeysaan Boy Faye ak Franc ñu ngi tegante bopp ba tey Boy Faye ak ñu ngi tegante bopp arbitre bi àttewaat na arbitre bi àtte na avertissement Franc avertissement Boy Faye Franc am na deux benn Boy Faye am ñaar Boy Faye deux avertissement Franc benn ndeysaan Boy Faye ak Franc ndeysaan ak Franc Boy Faye bi daa mel ni la ca desoon ci waxtu jeex na wala déet

ña ngay tegante bopp ba tey Franc Boy Faye Franc Boy Faye Franc Boy Faye ñu ngi ci làmb Franc Boy Faye arbitre bi àtte na ndeysaan Franc lañ jox victoire ba Franc gagné na Boy par avertissement Franc jël na final bi génnee na par final par point ndeysaan avertissement ndeysaan ngay jooy Faye Boy lu waral jooy ndeysaan am na lu ko metti nag waaye jàmbaar nga ndeysaan na moo arrière lamb ji moo ko arrière lan nga jàmbaar nga. jox ma yére jox ma yére nga. ara fa. ku mu fa yegg na suuf. ndeysaan jàmbaar la.